guy mbind gi nek suñu wet mbokk taalibe yëpp ku nekk dugg ñaan soxlaam ñu doon laaj loolu moo ko waral waaw ginnaaw ba ñu sant yàlla bu baax julli ci yenente bi sant Sëriñ Tuubaa bu baax eh, ñu ngi fii ci guy mbind lii guy gi ngeen gis sama ginnaaw eh, mooy guy sëñ baara gi nga xam ne wax nañ ni ku fi bind sa tur bu yamal xiyaame moom moo lay seere eh, loolu nag mo tax mo indi turu guy mbind moy guy gi ci sama sama ginaaw mbokki talib ñew di fi di ko siyaare di ci bind seen tour guuy gi serigne baara lañu ko dippé baara Mamadou Lamine guuy gi nak ca suñuy maam lañu fi daan indi ak suñuy wajur yi man du ngom mi yaakar sëñ khadim bu serigne baara yaakar sëñ khadim fat jóob yaakar jami ko jëmm joju yaakar bayam bi guuy gi lo fi ñaan ren yalla fat sa aajo loo fi ñaan ren di nga ñaan di wan lu guy gi baara borom kàddu gi ah ma da bam fi dale di ñaan ak léegi xale bu ndaw laa tuut tànk sama waajur indi ma fi boobaa tey ma fi yéen ñii nga xam ne yéen a ñëw nag ci guyam gi nga xam ne ku ñëw nag fi bind sa tur ku ko fi bind ren di nga ko bind déwén ku ko fi bind ren di bind déwén ku fi bind sa tur waajur déwén loo fi ñaan ren balaa déwén nga